école normale la wuti rond point G2 daal di ñaxtu bu baax a salfaañi gi nga xam ne nga xam ne ñoo fi nga xam mooy mission ma maanaam daal di li nga xam ay secret te homme politique pouvoir bi di ko daal di nag si mooy rôle journaliste d'investigation te nag journaliste d'investigation bu demee ba nga xam ne mëntu da fësal li nga xam ne dañu koy laax raté na li nga xam mooy mission ma maître Assane Dioma Ndiaye nee na nag am na mënu seen noppi journaliste bi mënu seen noppi te nag li nga xam ne mooy rôlu journaliste mooy dénoncer njombe yi nga xam ne maanaam nag régime bi ñoo koy def te nag ñi nga xam ne ñooy tas ko doxa bari dañoo war di participer ci bonne gouvernance réew mi ngir nag njëriñu askan wi yéen kaay gi nag xëy ñu en tout cas li am ba tey jii mbooleem li nga xam ne tey jii sa àjjuma ji ñu koy amala maanaam bu 15 heures jotee ba 16 heures daal nag jugee école normale ñu xibaar naan ñu lu jëm ci wàllum vote budget bi démb la ubbi waaye nag mbir mi na jër mbir mi assemblée nationale mën nga tàngoon na jër diggante opposition bi ak ñi nga xam ne ñooy pouvoir bi waaye nag ki nga xam ne mooy ministre bi ñu dénk wàllu finance nee ma Ba moom nag ma ngi dalal xel budget de solution la yéen a kaay gi di xibaar naan ñu yi nga xam ne ñoo bokk ci ku jigi niki dëmb solal nañu ministre xam ne jamono ji dafa daal di salfaañoo maam jaara faama démb nag nee na Moustapha Ba yow est ce que yëng nga ne jamono ji maanaam Sénégal yi dañoo xiif Sénégal yi toroxtaange gu métte métte la ñuy dund ndax nag bëri na si ñoo xamante ni laax la ñuy lekk ak fonde ak sumbi ak cere loole la maam jaara faam daal di wax Moustapha Ba démb ci assemblée la nee na ko nag état bu Sénégal ma ngi fi nekk di bàkku naan wàññi nañu waaye benn yoon fii ñu ko nag ci dund ak nekkinu askan wi Sénégal nag mën la bor bi nga xam ne moom la Sénégal amee bëri na genn xeetu bëri goo xam ne maara détaale mën la gis nga at mu jot Sénégal dina génn lu toll ci cent quarante et un milliards maanaam avance ko si bor bi yéen kaay gi di Rewmi Quotidien nee na assemblée nationale ni ki démb Guy Marius moo ko toj moom nag ñaawlu na bu baax a baax exonération fiscale bi nga xam ne moom la ñuy defal entreprise étrangères yi entreprise étrangères yi exonération fiscale bi nga xam ne moom la ñu leen defal loolee moo mën a ñàkk Guy Marius Sagna ci journal bi di Rewmi Quotidien nee na jamono ji nga xam ne baykat yi ak sàmmkat yi ak nappkat yi ñoom ñoo ngi fay impôt jamono joojee Macky Sall ci boppam ma ngi nag nag lëkkaloo ak tubaab yi di luubal li nga xam ne mooy alalu askan wi ndax nag Macky Sall dafay luubal sunu alal maanaam dafay sàcc sunu alal di ko jox tubaab yi di sàcc sunu alal di ko jox njabootama ba pare tamit di sàcc sunu alal di ko dugal ci poosama kàddu yi kii mari Sagna la nee na nag budget bi nag moom du ko voté benn yoon ndax nag budget dar nag la budget la boo xamante ni ay tappale kese la jamono ji nga xam ne nag Sénégal ma ngi baal entreprise étrangère yi lu jëm ci wàllum fayuk TVA jamono joojee auxiliaire de police yi quatre-vingt-dix mille la ñuy fayee ko jamono joojee tamit Mari Sagna nee na militant yi nga xam ne ñoo bokk APR ñoom ñu leen di jox ay poste ci au conseil des collectivités territoriales ak conseil économique social environnemental budget bu Sénégal 2023 maanaam boro koy ñaana yéen i kaay gi di wal fajri nee na ñi nga xam ne ñooy député yi ni ki démb ñoom nag nee na ñu au conseil des collectivités territoriales ak conseil économique social environnemental amu fi benn njariñ amu fi benn njariñ Moustapha Ba ministre bi ñu dénk wàllum finance na lu jëm ci wàllum pétrole bi Sénégal dina ci am six cent milliards at muy jot dette publique bi xayma nañ ko ci onze mille milliards trois cent vingt six milliards journal bi di Sud Quotidien nee na bor bi xam ne Sénégal amee lu jëm ci dette publique bi deux mille fay lu toll ci quatre cent vingt quatre milliards loole nag bëri na yéen kaay gi di évidence xibaar naan ñu ñi xam ne ñooy commerçant yi jamono ji ñoom mer nañu lool commerçant yi mer na ñu wàññi njëgee te ñoom stock bi nga na ñi nga doon liggéeyee ay jamono ci kër gi di Sotrac ak Ama Sénégal ñoom nag gouvernement bu Sénégal nee na ñu jagleel nañ leen treize milliards ci budget bi ngir nag daat leen koy fay yéene kaay gi da la dafay quotidien ñu xëy fekk fa metre Pam Ndioko moom nag daat nay wax ne bu ñu sukkandikoo ci constitution bi Macky Sall amul sañ-saña def ñetteelu mandat daat nay wax ne jamono jii tembe fii Sénégal toll ci weeru novembre pii bu ñu fi amuloon ay élection présidentielle Ousmane Sonko gañe ko loole nag maître Pam Ndioko ko wax ma ngi ci journal bii da source a xëy dañu xibaar naan ñu budget 2018 ni ñu ko yoree woon jamonoy Amadou Ba gis nañu si ay njombe yoo xam ne toll na ci 200 milliards ñi nga xam nañu ñooy waa Cour suprême ñoom ñoo ko fësala yéene kaay gi délibération xëy yóbbu ñu diwaanu Louga Louga ginnaaw raay dañu faa jàpp benn jigéen boo xam ne 38 ans la am ak lu toll ci 226 cornetu yamba yéene kaay gi dee sar xëy dañu xibaar naan ñu sa fini julli tubaab ci Sadio Mané ci Qatar bii mën na la coupe du monde bi Sadio Mané du am na ñoo xam ne nag njorta nañu ne maanaam